mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi fii ci Saladam 2023 tey nag maa ngi fii euh, ci BG Sëñ Fallou Baye daal maa ngi lay champion Cissé ñoo lay bëggee di la siyaar di bëggee suñu mhm. waaw di leen wax ne ñoo si Saladam bi. waaw di bëgg ñëpp di siyaar ñëpp di jaajëfal ñëpp waaw. Baye Tall euh, tey euh, defe naa ni ginnaaw ba nga defee liggéey bu am solo ci penc mi ci perdi bi ak ñeneen dama gis nag euh, keroog ma ñëw fa fekk nga dugaloon benn mbote dama nag mbote bi moo indil de. <laughs> waaw kii mooy la bayka uh-huh. moom ñoo ko juddule uh-huh. ndax yaam suñ belgéri la nekkoon. ñu jël yaay ji muy ngoone yóbbu ko ci duugaay ndel la bayka mi juddu quoi. mu nekk euh, espoir boo xamante ne actuellement mu ngi toll si dix huit mois. dix huit waaw macha allah. Euh, tey euh, duugay na boobu ki ko yor dafa naa ni yow am nga histoire parce que ba muy jën duugay na dafa naa fekk nga ko. waaw muy Seydou Ba sama père Seydou Ba mën naa ne man maa ko jëndal duugay nde ba muy am ay quelques jours. après si la demee ba du commencé tëb ma jël sam benn femelle bi ñu naan góone mhm. yóbbu ko kër paa bi. Mhm. boole kaag duugaynde la béykat muy juddu quoi waaw. booy da a càmm nag. non affaire yi xam nga élevage li may wax rek. élevage moom croisement yi boo ko xamee rek. pour nga judd la champion lu yomb la quoi. waaw duugaynde ba koy gis te ngi lan moo la impressionné woon ba nga ni grand bi jënd ko. waaw du ba ma koy. boobu ñaata weer la boobu ay quelques jours ay quinze jours affaire yooyu noonu ma gis ko mu nekk mbote boo xamante ne mbote bu yéeme yéeme. waaw bu boo xamante ne képp koo gis rek di nga xam fu mu jëm quoi. waaw léegi si laa ne per ki def sa xaalis boo ko defee sa xaalis doo ko réccu. Eh. yàlla def ñu wax ak ko Nicolaï jubóog moom. ñu jënd xar mi. macha allah waaw. ba tey yàlla def doomam ñëw say loxo. doomam bi nga am benn femelle femelle boobu moom mooy kan nga yóbbu ko mu tëbb ba mu judd. waaw kooku mooy ngóone waaw mooy femelle boo xamante ni moom mën nañ ni waaw duugaynde mooy meilleure femelle boo xamante ni moom lañ boole duugaynde waaw ndax duugaynde musul tëb femelle bu doy noonu waaw mu yaay la bayka te bañ ko tegee ci duugaynde tamit ba mu juddoo waaw mën nañ ne la bayka mi mooy meilleur doomu duugaynde ah waaw ndax âge bi mu am. Mm. ak mensuration yi mu am amul doomu duugaynde bu ko am. ñaata mois la am. 18 mois la am. Mm. nii nii nii lu mu gàtt gàtt bu ñu ko nattee day génne 116 heures. si 18 mois waaw nga xam ne kon loolu noonu nga xam ne du ay caaxaan. waaw ma tagal la ci leen production moo nekk maal boo xamante ni. doomam bu góor du taxawaalu. dinaa doomam ndar de. waaw non doomam instant ñoo ngi raison fépp. dinaa doomam allah jamono ji. waaw ndax. waaw tey mu am 18 mois dafa mësul mësul dugg concours. no mësul dug concours. ndax gis nañ fi espoir yi fi nekk xam nañ ni bu bu ñu leen boole nag moom mu duma leen. waaw mais sam pap moo ne ma demal exposé xar bi noonu rek bul dugg concours moom maire bi affaire yooyu mais ba ñuy ñëw. concours yi ñu taxaw na jóg. mais xam nga affaire yi tamit da ngay déglu waxu kilifa rek. Ah, waaw loolu sa kilifa wax rek nga def loolu quoi. lu mu defagum béykat yi ba am ah, na nga doomam. Ah, indi nañ fi ñaari doomam. Mhm. en plus tamit. waaw Belzéri bi ñoo ngi fa bàyyi lu mat ay huit doomam yi jigéen. macha allah waaw mais moom doomi góor yi comme ni mu la wax rek moom lu judd jaar la quoi. ok waaw moom moom lu fend jaar lay def quoi. ok macha allah waaw kon tey euh, euh, doomam yi ay seex lañ wala. non non duñu ay seex. ay añal la ñoom ñaar ñëpp ay añal la ñoom ñaar ñëpp quoi dañoo nduroo xam moom même tibu xar lay def quoi. ok moom du lajj tibam. ok waaw li baay ji doon def. da ko indi par force li baayam doon def. Hmm. muy du gaynde li maamam gaynde daan def moom dafa boole lépp di ko def ok waaw. Euh, femelle yi yan nga indi. waaw femelle yi indi nañ fi ñaari espoir benn tëng. Mhm. waaw ñaari añal yi ndaw. Mhm. lañ fi indi quoi. ok allah. en tout cas tey tey à part moom tey ko booleel. Euh, labee ko koo ko booleel parce que penc mi jaar na fa. père ji bi jaar na fa. ak kan ak père père Ousseyn a ah? kan léegi ñan nga booleel ay euh, labee ka. waaw actuellement nii moo tëb doom penc yi jigéen mhm. waaw moo tëb doom père Ousseyn jigéen ak yi. sëtu Saalum Saalum yi fa nekkoon doomu bébé Saalum yi ñoom ñëpp moo leen pour la saani bu dee ay femelle rek moom am na femelle ba mu doyal sëkk waaw sama la wala eh. te moom tamit comme femelle yëpp même tibu xar lay jur ñoom macha allah mooy comme li ma la wax rek moom dafa ñëw jël doonu Saalum bi ñëw jël doonay duu bi ñëw jël doonay maamam gaynde boole ko waaw macha lu mu xelli rek uh-huh. waaw gaay na gondoo waaw looloo quoi te gis nga mensuration yi épi quoi. ok waaw mensuration yi doy nii si xaru mois. koo ko wax gars yi da nga koy présenté nit ñi ci foire bi sax mais gars yi tam tam ñu naan kii. waaw ah. te yow xar sa kanam la judd. dëgg la dëgg ba may ñëw bergerie bu nekk xale bu ndaw ah ñu aj ko ci kaw. voilà man maa njëkk man maa njëkkoon a tax ñu wàcce ko. voilà yaa njëkkoon tax ñu wàcce ko yaa ngi fàttaliku. léegi euh, kon tey ay doomu jigéen nga indi mooy ñaari cër rafet yi ñaata lañ xam nga affaire indi quoi. dañ nañ mosal ñaari ndax yu leen indi ndax lu rek yi allah dañ koy jël quoi gis ko encore ay jigéen la. yi fa des yëpp ay jigéen la am. teel benn doomam yi fa des. non incha allah loolu la def loolu la def. Ah, na instant yi moo defaat nii tour quoi. Ah, dañuy xaar mu wàcce. ñu téye ci doomi jigéen yi quoi ci doomi góor yi quoi tànn si ñaar toog xaar quoi. ñaar doom yi ñaar moo actuellement ñoo ngi cinq mois. waaw. Euh, exposition bi rafet na en tout la béykat moom. ah la war nañ ko xaar ci élevage. kii mooy le dessinateur ah. le dessinateur di l' élevage moo ngi nii la bayka. mooy def dessin yi mooy def dessin kon loolu loolu dafa leer kay le dessinateur rek nii la bayka fils de Dou Gaynde digne fils de Dou Gaynde macha allah ngeen gis ko nii ah, boo xoolee bopp bi rek xam ne kii waaw macha allah xool corne yi mu nekk am noo mu boole mensuration beauté ah esthétique bu rafet macha allah tey exposition booy rafet na. Ah, joxaat joxaatal gars yi adresse rek numéro yi ak loo leen di wax. waaw sama numéro mooy comme li ma la wax Bergerie Serigne Fallou Mbacke moo ngi Fass Mbao raay ba képp ku fa bëgg a ñëw rek boo wootee si numéro yi rek 77 314 83 41 waaw boo ci wootee rek ñu tatal la bëgg a ñëw si Bergerie bi ñëw visite li fa ne quoi. booy entre la béykat penc mi Père Ousin kan nga gën a gis ni moo moo moo ëpp doole ci Bergerie bi. gannaaw Cissé ñu ngi lay bëgg di la non ñoom ñëpp ay champion lañ quoi mais la bàyyi moom da cee raw. mooy la man penc mi nag dafa yëngal bergerie bi de penc mi. non mais la bàyyi dafa ñëw doggal yi. mais xam nga ni booy li mu def bergerie ba il faut ñu xoolaat ko balaa man man balaa ma naan kii ko mën il faut ma ñëw quoi lay xool. non yow bu foire bi jàllee jàlle da ngay ñëw kër ga ñu def fu gën a yaatu. nga YouTube nga xool production de penc bi nga xool penc bi li mu def fa. bii ba lu raw loolu lañ lay wan incha allah rabbi kon booy kañ rendez-vous kañ. non incha allah après foire rek yow dañuy ñëw bergerie bi gën a ah, yaatal rek waaw xool production la baykat bi. mbokk sama bi defoon naa production de penc bi mu yëngal Sénégal léegi nag production de la baykat may la ba tuuti rek ma dem seeti ko fële Fass Mbao. Ah. Fass Mbao raaya ba loolay am. jaajëf